Assalamualaikum. asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu taal bi yëpp bokk jul yëpp jégalu ci kàddu bi ndax xajul soñu dama sepp soñu dama dem waaye léegi ma lay wax lu gàtt leen maa ngi nuyu boole ko Saya yëpp ci turu sëñ boobu xal xalif Saya man fadal nga moytu ñëpp noo ngi nuyu sëñ sëñ Mountakha Xassé dañu duñu duñu ñaan mu yàgg ak tëwal ak sëñ Touba te di sànn préfet ak gouverneur ak mboolem képp koo xam ne yaa ngi bokk ci service service seen si taxawaay baax am na ci yaakaar ne mboolem du la ñëw ci màggal bi 90 yëpp def naa ni lu yemm na kon nag loolu seen taxawaay rafet rafet rafet la kon nag nu ngi si ñëpp di ñaan képp koo xam ne yaa ngi ñëw na ñëw jàmm dellu ñu ñaan alxuraan ji lu mu gën bari moo ci gën ak xasida yi ak salaatu nabi loolu moom moo ci gën a ci gën a ci gën am solo ndax borom bés bi ku fonk alxuraan la ku fonk xasee ku kon nag képp képp ko ñëw na nga jàng lu nga da bëri moo gën loolu ñi nga xam no no yor ko xam nañ nga ñëw Touba bon boo ànd nga bokkoon xewal gi ñu ñëwul bokkoon ndax ñëpp si wàllum ñëpp nekkal amul xaj amul seen kon nag noowu ñëpp oto yi dem ñëwul denk nañ dox lànk dox lànk dal lànk loolu seen wàllu ko rek kon nag ñëw ñëw jàmm def jàmm borom presse yi ñoo ngi nekk mboolem ki nag ñoo ngi la jëm gërëm di presse bi yëpp rek gis nañ seen taxawaay xam ne yéen a jàllale xibaar yi ci ci tey ak ak ci teggin ak ci yar lépp a wax lépp leen loo xam ne ñu a moom taalibe la saya sa balik fi kon noo ngi koy di gërëm di ñaan képp ku taw yàlla sa fa yaajo suñu ñëpp jàmm noo ñaan suñu borom defal jàmm ci réew mi nag Sénégal gii ndax jam kat sëñ Tuubaa nee na gisul ko jàmm àdduna lu ko lu jam jàmm àllaaxira àdduna boo fay jàmm da ma tax mbokk ci nga ma liggéey ci ci nga mën a jàmm yàlla soo boo jam jàmm doo mën a jàmm doo mën a liggéey doo ku wala wala kon dafa gi dalal xel yi defal defal xol yi yi xoloo bi xeex bi métti na lool waaye lépp yàlla ñu ñaan suñu borom mu set guy rek ànd ak dal ak accident yeeg rayante bi lépp ñu ñaan suñu borom mu lépp suñu borom te teg man na ko ci bàkk suñu tubaab ci bàkk ci bàkk borom bi ndax mag bis réew weer weer màgg la ndax yéen salaa salaam gën ñu mindeef kenn xam ne am na ci sëriñ boo xam ne ñëpp na ko bokk mu julli juróom loolu cër la boo xam ne ku julul ci nga te loo xam ne boo ko suñu borom yóbbal àjjana mooy mooy julli juróom suñu fal nag fi leen fi lañ kon nag dañ am ñaar tawfeex suñu tubi salaa salaam tahsin sulay sama fadal kon nak nopi dafa jam yalla dafa jam ci rewmi dafa afrique dafa asi dafa europe amerique fepp xone vi sawara sawara nga tak yalla sa borom sum dox ci dox jet buy jam jam rek mo mo mo neex jam jam jam jam jam salam